allahu akbar allahu akbar pour jot suñu vidéo yi am bi ba bi amee vidéo borom bi tabaraka wa kon xeet wi muslim la leen tudde ndax lislaam ku ci nekk muslimoon ngay taqatiya boobu mu wax nag dog googu nit ñi dog mi ngi tàmbalee ci fent ay tur bàyyi fi identité mi ngi mel ne sa identité tur wi ci ne nga wut weneen tur wu ñu lay wooye woo xam ne bokk la wi ne ci sa carte d'identité xam nga kon daanaka da ngay yomb réer yàlla muslimoon la ñu tudde waaye boo ci si jurit ñi am na surnom bu mu ca teg boo xam ne booba la gën a fonk ci bi nekkoon ci identité noo bi la gën a fonk ci surnom bi la gën a fonk ci noo bi dàkkental wi la gën a fonk ci tur original bi ca lay jàppe nit ca lay bàyyee nit comme bokkale dàkkental woowu jàppale ne yaay waayam ku mu ko wuuteel doonte yéen a bokk turu original wa jàppewu la mbokk loolu nag bu yàgg na tàmbale woon wa qaalu kunu huudan aw nasara tahtadu gis nga yahud yaa ko tàmbale na ak nasaraan yi ñoo ne bu leen nekki muslimoon nekki leen yahud wala ngeen nekki nasaraan kon ngeen gindi ko xam nga yahud ya diine Moussa tuddul yahud ya de gaa yee ko ko tudde rek diine Isa tuddul nasaraan ya de dañ ko ko tudde rek ñëpp muslimoon lañ tudd ñëpp musulmon ay catholique ak ay siif ak ay yoy yëpp ay xeet la waaye diine ja islam la tudd inna diina inda allahi al islam néewul ak aana ba àdduna sosoo ba léegi inna diina inda allahi al islam benn diine fi wala bal mooy islam mooy jébbal sa bopp yàlla ay nit nañ ñoo bàyyi turu islam bi ne koonoo hóodan yahood yéen e nekk leen yahood nasaraan yéen e nekk leen di nasaraan kon de su ngeen ko defee di tax gis nga mu ne xool da nga leen tontu day بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسلمين دين جلال موجه إبراهيم لكم تا إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا سيدي بورم إبراهيم دوب يهود دوب نصرى تدين مو ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما بير ما صاح يمول فوفو واي دم نان با جاب ني موتش اك تخي الله ميغي يام تي كوتو دو تور يوي ñu ne lan yadxulal janna illa man kaana huudan loolu la yahud yi wax nee nañ doo dugg àjjana fi nekkul yahud nasaraan yi ne lan yadxulal janna illa man kaana nasaara mënoo dugg àjjana fi nekkul nasaraan borom bi ne tilka amaaniyuhum buñ sañoon de loolay am waaye dañoo moomul àjjana qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqin andi leen seen preuve andi leen preuve buy wane ne ku nekkutub yahud doo texe wala ku nekkutub nasaraan doo texe ana lay wax dem ku askanuwul ci seen askan yooyu ñu ne kooku nekkul ci dal wa qaalat alyahudu laysat alnasara ala shay wa qaalat alnasara laysat alyahudu ala shay te kat wahum yatluuna alkitab waaw yëmul ci ñoom nag borom bi def kazalik noonu ñu ko defee nag qaala allazina laa yaalamuuna misla qawlihim gis nga kon du yow bu yahuud yaag nasaraan ya doo ko wax de waaye ñi ñëw seen gannaaw ba ci jullit ñi te amuñu xam-xam kenn ku nekk am na siirnoo bu mu teg ci lislaam bi jàpp ne tur woowee mu ca teg ku ca bokkul doo tax loolu mi ngi fi borom beeku kasaalik loolu yahudi yi wax ak nasaraan yi la allazina laa yaalamuuna misla qawlik waaye fallaahu yaxkumu baynahum yowma alqiyaama fii ma kaanu fii yaxtalifuun suñ borom dana atte seen diggante ba yowmal xiyaama ñoo ñuy wax ne ku nekkul ci lu nu ne parce que alxuraan lu mu ne nettali rek bul jàpp ne daa yam te ñooña luy répété la maanaam ñooñu noonu ñu wuti ay noo teg ko ci kaw islaam bi noonu la amee ci biir jullit ñi yu ñu ci teg buñ la présenté ñu ne jullit rek la day doon jullit rek jullit bu bokk fan waaw balaa présentation bi mag il faut nga wax foo bokk soo bokkee tur wala cay teg ci lañ lay jàppee wala ci lañ lay baax am na jullit gi rek moom du tax ñu jàpp la du tax ñu fonk la waaye jullit la waaye fu mu féete ba nga waxee fas bi ah waaw kay kooku de suñ mbokk ko wala fu mu féete ñu ne la kooku de amul solo kooku amul solo gis nga loolu ñu dudd kon tur bi yàlla joxe woon moom xeet nañ ko weneen wànca teg moom lañ gën a fonk ci lañ lay jàppee ci lañ lay baax borom bi ne ñee ku nekkul li nekk doo dugg aljanna balaa axakay dana dugg aljanna de kan moo fay dugg man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alayhi wala hum yahsan jërul muy xam ma sàmba wala muy xam ma demba aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun jébbal na boppam yàlla léppam mu jox ko yàlla te rafetal doxin wax kooku yàlla nee na maa yor pay danaa ko fay falahu ajruhu inda rabbi من ماي فاي تفاي ما غور ما كفاي ولا خوف عليه ولا يحسن سن بروم يمو تي واي دا تاغ ني يم سي تور جولي ريك دا لي لا تاغ ني ومن احسن دينا كوم دينا يي دا فا باري كين كو ريك لام فيت دينا لا كو تود بروم بي واو دينا يي بو باري كان مو غينا رافيت لا ميم من اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا انا كان مو رافيت غينا رافيت كي خا خني دينا دا يم كيب سي جيبل ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن متفق ابراهيم جار واتبع مله ابراهيم حنيفا وتا يرد بن صلى الله عليه وسلم بروم نيكو نيل اغير الله اتقي وليا داغي نه بغي مو جينن كليفا غودول يالا فاطر السماوات والارض يالا مي بند اسمان اك سوف تي وهو يطعم ولا يطعم موي جوخي نيم واي ديس كو جوخ نيم ياو نك كينن كو في بوكال اك يالا يا كوي جوخ نيم دولا جوخ نيم واي يا جوخ نيم بوغا سير رك كنن كوفي تك بلاص يلا يا بو يلا اي وهو يلا نك يطعم واي ولا يطعم كنن نك موم يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلف من يرنت بي وخال نك ماي بروميير كو جيبل بوبام يلا ولا تكونن من المشركين دل وخال ني من لي تخ ما اند تي ييغي دي نكو تري قل اني نهيت نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله ndax lan lamma jaa aliyal bayina dama am lu leer ba noppi dama am lu leer ba noppi bu alquran kon mënatuma ànd ak yéen ci yi ngeen nekk lamma jaa ani bayinatu min rabbi wa umirtu dañ maa digal an uslima li rabbil alamin dañ maa digal ne naa jël sama mbir ma jébbal ko yàlla kon boo fekkee keneen koo xam ne moom leneen la jébbal nee na man mënuma ànd teg kooku ndax dañ ma ko tere kon inni nuhitu nuhit dañ maa tere an abuda allazina tadauna min dunillah lamma jaa aliyal bayinat dañ ma tere ba noppi digal ma luñ ma digël nak wa umirtu an uslima li rabbil alamin pour jot suñu vidéo yi am solo da ngay abonné ci chaîne bi ba su ko notification bi amee vidéo bi